yonente bi alayhi salaatu wasalaam xam ngeen ni yàlla da ko fonk da ko bëggit da ko sopp moo tax mu tànnal ko maanaam ay wayjur yu sell yonente bi ci moom moo wax ne yàlla ci moom moo sedd bi ñëpp def na ñaari xaaj ñi gëm ko ñi weddi ko ñi ko gëmit mu defaat leen ay ay ay giiri giiri giir nee na mu tànn ma boole ma ci mu tànn giir ga ca ëpp ga ca gën nee na foofee la ma tànnal ma soqi ko foofu biir giir googu it defaat ay famille yu bare bari nee na mu seetaat biir famille yooyu it famille ba ca gën mu tànn ma ca ma askanoo foofee bawoo foofee nga xam ne kon yàlla da ko tànnal loolu waxtaan nañ ko ba tàyyi ci li weesu fi mu bokk yàlla da ko tànnal mu bokk ci ñi gën a sell ci doomu aadama yi la ko yàlla doon tànnal muy maanaam leeram googu doon jaar ci ñooñu ba agsi ba keroog bi mu waree feeñ ci bis bu mel nii muy bisu fukk guddi fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu wax nañ ni ci guddi googee borom ko koy wuute nañ ci waaye li gën a wóor mooy bi fajar daataa jot njëkk fajar ci la gane àdduna moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ganee àdduna itam jëmmi guddi googu rek lu bare bare da ca xew mooy li sëñ bi wax ci Jazbul Quluub te wax ko ci téere yi ci des yëpp muy nettali xew-xew yi am ci guddi gi wax ne xawat xawaariqa badat anir ruwaati sabatat ka misli naari nutfi at ma am mi xaa i daqa bi mooy guddi googu ay xar baax yu bari da ca xew bokk na ci mooy mboolem buur yi nekkoon ci àdduna seen nguur dafa yëngu ci ci ci ci ci ci guddi googu wax na ne kenn ku ne chaise bi nga daa toog muy chaise buur bi dafa yëngu yëngu ba buur bi mujj wàcc saa yu toogee chaise bi yëngutuwaat ci guddi googu yëmut ci loolu ni suñ bi waxee sataxa xiina wulida xayru nabiyin qad bada salla alayhi man hada fuaadahu bilxikami nuurun azimun qad yara bihi qusuura qaysara man kaana fi ummi lqura makkata xayru xarum masalan leer goo xam ni bi saydna Muhammad di wàcc di gane àdduna leer gi dafa ànd ak jëmm ji soxna Amina moo ko nettali wax ne dafa gis booba nee na moom li ngi seen pale ya nekkoon Busra ñu ko doon seen da nga xam ne di diggante Makka ba Saam jaww ji dafa leer naññi ba bu fekkutoon ak garab yi boo taxawee di mën a seen fee ngir leeraay bi mel ni bëccëg asamaan si itam li suñu wax wakkan wakkan xidaadi suxu bi tardan li ahli riya bi asamaan si itam ñu gis biddiw yi benn biddiw maanaam biddiw yi nekk ci asamaan si mel li li li li feq li ñuy wax biddiw bu feq maa nga jëkke biddiw bu leer dem fe beneen biddiw def na asamaan fees den ak yu deme noonu ba noppi itam ñu gis lu mel ne tey furs yi waa furs muy fi ñu wax tey Iran nga xam ne ñoom ay jaamukati sawara lañ doon jaamu seen sawara bi nga xam ne junni at ak lu topp mës a fay nga ne waxtu ne dañoo wut waa joo xam ne li yitteem mooy bu sawara bi naree fay mu taal ko keroog guddi googu sawara dafa fay ñu taalaat ko ay yoon mu fayat ci ci guddi googu ba noppi itam li ñu aynu saawata saawata ab dëkk la boo xam ni dañu wax ne saawata ab ab saawata dañu wax ne ab dëkk la bu nekk diggante Ray ak Hamadan ci dëkk yi dëkk yi nekk Iran fi ne nii masalan Faris dëkk yi Faris yi la bokk dafa amoon genn dex gu ndaw goo xam ne dafa nekkoon maanaam dex la goo xam ni buxeera lañ ko daa tudde waaye yaatu na dex gu yaatu la kër ci guddi ga dex gi yëpp dafa ñis fekk dex googu ñoom dañ dañ ko dañ ko dañ ko maanaam dex ga doon dex guñ fonk fonk nga xam ne bu mësaa am ab liir xale bu ndaw bu juddoo faw ñu yóbbu ko ca dex ga maanaam dugal ko ci génne ko ngir sàkku barke ci ci dex guddi googu nag dex gi dafa dafa ñiis noonu noonu loolu lépp xew na ci ci genn guddi googu masalan loolu lépp boo seetloo da ngay gis ne ay waanu kisran saddaxa li suñu wax maanaam kisra muy buur bi nekkoon Faris pale bi dafa dafa yëngatu pale bi ci dafa yëngatu ba tabax pale bi am ay balcon yu balcon yu bari yu ci daanu dafa def dañuy wax tremblement ci jamono ji rek nga xam ne suuf si yëngatu nga xam ne tabax bi mooy day mel lu xaw a kii ba pare yàq li ñuy wax tremblement moo am ci suuf soosu ci ci ci guddi googu moom la suñ bi wax ne iwaanu kisran sadaa fiha wa qablu rufia samkun lahu fartafa naxwa samal mukarrim xata sarirun kasara li ajli hawlin yactara min nuuri afdalil wara rabbi alayhi salim masalan lii lépp ci genn guddi googu la xaw maanaam lo maanaam xew-xew yi rek fi mu ne day wane lu bare bare bare day wane daraja yonte bi alayhi salatu wasalaam dana waree itam ne xew-xew yu bare bari nar naa xew rawatina ñi nga xam ñoo nekkoon ay yéefar ak ñi daa jaamu ay xërëm xërëm yi wax na ne ci guddi googu xërëm yëpp dañoo daanu mel na lu mel na lu sujjat ci suuf yi nekkoon biir Màkka yi nekkoon ci yeneen bërëb yëpp bu ko defee loolu dañ ciy dégg ne kon lu rëy lu rëy xaw na masalan ab li na ma yàlla jégal ab boobu liir la li ñuy wax booba xam nga dara xewagut nu bu wagi jëwagut ab ab ab xal ab liir moo moo gane àdduna ñu gis àdduna sëpp leer naññi biddiw yi nga gis muy def mu maanaam muy fàq asamaan si bari ay biddiw yi ci fàq dem ak dikk ñu gis xërëm yëpp marché daandoonoo maanaam buur yi fi nekkoon jamono yi tam ñoom ñëpp seen pale yi am tremblement ci suuf bi nga xam ne pale bi day yëngatu suuf si yëngatu ba ba mbir yi daanu ndox yi ci doon màggal ba ci ak ak sawara yi nga xam ne dañ leen daa jaamul yëpp maanaam yi fay ndox ma ngi loolu day wane ne maanaam màggaayu ak xew-xew bu rëy moo xew ci jamono yooyu ci guddi googu kon loolu lépp xaw na fi loolu it wax nañ ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci guddi googu ci njëkk fajar di jot ci la gane àdduna bi mu ñëwee set wecc mboolem yi ñu defal xale yi ci bare bari fekk nañ ñu defal ko ko ci misaal xam nga xale bu juddoo danañ ko def li ñuy wax xarafal danañ ko daggal li ñuy wax jumbux jumbux bi xam nga day day gudd dañ ko dagg te yëpp dañoo fekk ñu defal ko ko ba noppi alayhi salaatu wasalaam ane keneen du am ci ci moom aw yoon ba di ko defal lu mel noonu alayhi salaatu wasalaam waxtu wi mu gane àdduna itam muy fajar boo seetloo am na ñeneen yooyu yeneen wax wax yeneen waxtu waaye du wér te gën a wóor te borom xam-xam yi ak rawatina gaa yu baax yi nga xam ne ñoom dañuy am gis-gisu xol dañoo maase ci ne jëkk fajar ci waxtu njël foofu la gane àdduna foofu it boo gisee waxtu woowu yonte bi alayhi salaatu salaam wax na ne yàlla saa yu jamono jot jotee mu waxtu njël saa yu jotee dana jege nit ñi nu jour la ko la ko xadis bi tudde waaye liñ jul rek mooy jege nit ñi jege goo xam ne dana tàmbali di wax moom suñu borom ne ana ku bëgg ma jéggal la nga ne ma jéggal ma rek ma jéggal la fi ne nii jamono ji ana ku bëgg wërsëg wax ne ma may ma wërsëg ma daal la koy jox léegi lu waay bëgg waxal si ne nii maanaam njël waxtoo kenn yàlla du fi delloo ak ñaan te waxtoo mooy waxtu yi nga xam ne ci la alayhi salaatu wasalaam gane woon adduna ak yeneen yu bare bari yoo xam ne boroom xam-xam yi danañ koy wax ci bu ñu nepp li siram yonent bi alayhi salaatu wasalaam itam ni ma ko waxoon rek xam nga ñu bari bu ñu jàng siram dañuy masalan ñiy jàng ñiy jàngat siram ay ay ay xeet yu bari lañ kenn ku ne fa sa pëstéef toll ak sa pas-pas ci moom toll foofu ngay noo ngay jànge mbiram am na téer yu bari yoo xam ni ñi ko bind xëy na ay nit lañ yoo xam ni occidentaux yi dañ leen a dañ leen a fëkk maanaam ñoom li ñuy tuddee xadaara garbiya bi civilisation occidentale bi am ni da leen a fëkk jaaxal leen fëkk seenu xel ba lu bare bari ci ay kiimaane ko ñu rus koo waxati léegi nga xam ne yonte bi melo wi ñu koy gën a jox mooy dañoo xam ne afkar yi la woon ak muslihun ijtimaai ak yu ne ma noonu waaye dañuy wax nabi yi fekk yonte bi njëkk muy doon afkar yi maanaam boroom xel mooy xel mu réem yi ak la nekkoon ci moom lépp la ko ca jur mooy doon ab yonent yàlla ci moom moo ko yónni yàlla yónni ko itam loolu mënoo ko mënoo jëflanteeg yonente bi te xar baax nekku ci parce que la ci njëkk ci yonente mooy jibril lay ñëw am malayka moo xam ne ci yàlla lay bàyyi ko ñëw di la wax loolu kenn mënu ko tajaaxul mu ne su ko du mooy ci biir booy nettali yonente bi alayhi salaam histoire moo tax nga gis ñu bare bari téere yi ñu def ni ci yonente bi siira buñ koy wax dañu wax ba agal na ne tey Muhammad di sa haykal bi def moom xasaneen haykal kitaab bi mu tuddee Muhammad la ko tuddee kana xamul du mu ca teg waaye boo gisee moom ci njëlbeen gi sax dafa teel a wax ne man du ma dugg ci xar baax yi dama yem rek ci maanaam nim xelam nim deme woon ak ak fi mu jëlee arab yi ak fi mu leen indeeg ak nim yewoo woon ak ak nim doon tëralee maanaam atte yi mu tëral ni mu baaxee ak ni mu yéwénee nga xam ne tey jamono ji ne mos nañ ko appliqué te muy juróom nit ñi xéewal bu àdduna foofu lay gën a jëmale sa ñu bëree bëri ci ci ci ci bindkat yi noonu noonu lañ ci boobu jëmuwaay lañ lañ jëm am ñoo xam ne nag ñoom maanaam loolu maanaam maanaam moo gën a fës sax ci téere téere siré yi waaye boo gisee lu mel ne sunu gaa yu baax yi nga xam ne ñoom ñoom la yàlla baaxee ñi awliyaw yi masalan ñoom ñëpp boo seetle seen i ci yonte bi dañ koy dañuy bari la wax xar baax yi nga xam ne moo feeñoon ci jamonoom moo feeñoon ci ak dundam ak ci mbiram te loolu lu am solo la ndax yonte bi alayhi salaam bu dee xel mu xel xel mu rëy rek kooku kenn ku ne mën nañ koo toppaat ginnaaw bi ndax borom xel yu rëy yi bari na waaye yàlla da ko yónni woon mu doon ab yonent boo xam ni gis nga lii xew ci gan ak addunam rek fi mu ne du du guddi gu ne mu xew moo tax ab yonent la maanaam faaw boo jëflanteeg moom loolu nga jë njëkk a jëflante bokk na ci li gën a yóbbu nag ci yonent bi alayhi salaam ci mu def dinaa ci ñëw léegi ba dama ñëw ci xasaay si mooy gis nga lislaam ñi ko jàng ni ñëpp seetlu nañ ni maanaam ay xam-xam yu bari la yu fasantikoo yu yu jafe itam te tey xam-xam yi nekk ci biir lislaam kenn xam lu mu toll te dafa bari te jafe te lépp moom moo ko jàngale moom alayhi salaatu wasalaam te it moom li yéemoon ci mbir mooy mënutoon a bind masalan boo bindee jox ko turam sax du ko xam keroog bi ñuy def sulxul xudaybiya ba ñuy bind accord bi nga xam ne moom la yonente bi dëppoo ak waa Makka bañ koy bind Seydina Ali di ko bind xam nga Seydina Ali dafa njëkk bind bismillahi rahmaani rahim Suhayl mi fa teewaloon waa Makka ne ko rahmaani rahim tur yu baax lañ waaye nag noonu xamuñu yooyu tur waxal bismika allahumma bindal lool yéen tamit ne seen naar yu faral mu faat mu teg ne mu hada ma saalaha alayhi muhammadun rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam tàmbalee wax soxel ne ko lool it far ko maanaam rasulullahi ji nga wax ni suñ ko gëmoon du fi nekk di bindante waaye accord da nga koy dind ba waxee ba bi bi loolu amee Seydina Muhammad wax Seydina Ali ne ko effacer rasulullah bi Seydina Ali ne ko loolu duma ko effacer mukk xalaatuma ko rasulullah gi xas naa ko bind duma ko duma ko farmu Seydina Muhammad dana ko wan ma ko fu mu ci ne Seydina Ali teg baaraam bi mu ne ko fii la mu ne maanaam di ko wan ba mu ba mu teg ca baaraam mu ne ko diggante bii la mu ne ko mu doog ko far nga xam ne xam ñu mut li ci rasulullah gi Muhammad alayhi salaatu wasalaam te xam-xam yi yëpp moo ko jàngale parce que loolu day wane loolu dara gënu ko yëngu ummi yu boo xam ne jàngut xamut li ñuy wax amut amut xamut xam xamut baax ah maanaam boo ko bindoo turam du ko xam mu wax ci ci xeeti xam-xam yi masalan ne amul xam-xam ci àdduna boo xam ne yonte bi waxu ci amut xam-xam yépp wax na ci ba ci xam-xam yi àdduna yi fi ne masalan li ñuy wax li ñuy wax tey fi ne nii wàllu li ñuy wax science moo xam science naturelle la wala yenn xeetu xam-xam yi jën yu yees yi nga xam ne tey dañ koy doog a découvrir nga xam ne doomu aadama yi ci lu mat juróom fukki at yii rek ci leen découvrir yu mel noonu yëpp yoon te wax na ci misaal xam nga fi ne nii moom borom xam-xam yi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy yëngatu ci wàllu fëlëg ñëpp dëppoo nañ ci ne suuf si dafay wër boppam maanaam suuf si du dara lu may ab bul boo xam ni dara téewu ko bu nekk ci jaww ji di wër boppam weer wi di ko wër ñoom ñu ànd di wër jant bi jant bi nekk ci dox bu xiir te loolu maanaam ci juróom fukki at yii rek ci lañ ko ci lañ ko xam bu njëkk loolu dañoo jàppoon ne dafa tëdd ni ba borom xam-xam bi njëkk a wax ne maanaam suuf si dafa dafa kupp ndalu ak day wër boppam muy ki ñuy wax Galilu ca France dañ koo rey maanaam borom xam-xam ba ko njëkk a wax da ko da ko rey ci ay ci ay mille huit cent et quelque borom xam-xam ya ko wax yëpp noonu ndax dañuy booba fekk na église bi moo yilifoon Europe yëpp te lim jàppoon mooy suuf si lam daa wax moom ci téere bi mooy loolu suuf si dafa dafa dafa dafa tëdd te ci alxuraan gis nga mu wax wa samsu tajri maanaam jant bi day daw ma loolu wax ji leer la wax na itam wa taral jibaala taxsibuha jaamidatun wa hiya tamurru marra saxaab masan montagne yi nga gis jàpp ne dañoo dañoo dal ñi ngi daw daw bu xiir comme ni niir yi dawee noonu la ci daw boobu la ñu loolu lépp yonte bi waxoon na ko junni ak ñeent téeméer at ca ca ca ginnaaw te boobu boobu boobu information boobu maaluma mënu ko woon a xam lu may ne yàlla mi bind lépp tiim lépp yor lépp xam lépp moo ko yónni xamal ko loolu loolu rek moo ci mën a am te lii ma la wax ni benn la ci waaye mën a mën na ci wax lu mat junni nit junni junni junni yu mel noonu ba ci oto yi xew ni ak xeeti warukaay yi am yépp yonte bi junjoon na ko ci alquran ak yenn yi ci xadis yi boobu xew-xew yi xew ci ginnaaw adduna adduna si Seydina Omar ci wax na mi ngi ci téere xadis yi mu wax ne yonte bi benn bés dafa mas a taxaw ci di xutba di wax xutba mooy day jëkke yonte bi daa jëkkee rek woote nit ñi dajaloo muy wax na ñoom nee na war a ko def suba ba tisbaar mu jël tisbaar yéegaat ci mimbar bi di waxaat di wax di wax di wax ba takkusaan mu mu wàcc mu julli takkusaan yéegaat ci mimbar bi di waxaat di wax ba timis mu mu mu mu wàcc julli timis yéegaat ci mimbar bi di wax ba gee nee na keroog mbooleem lu nar a xew ci ba kenn adduna tudd wax na ko keroog ñi xam xam nañ ñi xam xamu ñi mën a jàpp takk nañ ko la bëgg wax ñi mënta jàpp tëpp ñu ko ku mel ne Xusayfatu ibnu Yamaan nga xam ne dañ ko tuddee saaxibu sirri rasulillahi alayhi wa sallam nga xam ne bari na secret yoo xam ne moom la ko yontu bi déy moom bari na lu mu ci daan nett na loolu mi ngi téere xadis yëpp